jël lepp jox sulayman ngelaw yeeg jinne yeeg lépp di di di déggal Souleymane mën naa continuer ki yore rosu jami mom mo doon wax yent yalla Daawuda naan boy jang li muy jàng na montagne and ak mom di jang Kok moy ki yore rox jami kooku moy rabbul alamin macha allah kooku mooy ki sak kenen ku dul moom nag sa rox mi ci loxom nak bu len sa bu dan wat da daan waat ngi wacc ki nga xamni sama rox mi ngi ci ay loxom ñun li lañu doylo ñun li lañu doylo yewu len ngeen bàyyi seen waxi yàlla suñu borom bobu non yore ruuxu jaam yi moom moo xaral musa alayhi salam li nga xam moy gej mu jaar fa mok banu Israël fat bu faté lool lu reey la yaronte bi sallallahu ma naan sax ki ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci alquran señ bi xana jàngal won alquran bi mu wax li wala won mokal won alquran yalla bo dewe suratul isra lan lay wax yasalunaka yasalunaka anir ruh qul waaw <laughs> wa xuli lan la ko wax xuli ruuxu min amri rabbi amri rabbi ah, sëñ bi xanaa jàngul woon aay bi wallahi mën nga ko topp ci yonent yëpp alayhimu salaatu wasalaam ah, suratul maida keroog ba keroog ba ba ba gaa yi laajee yonti yàlla yonti yàlla isa ibnu mariam ni ko wàcceel ñu ci kaw taabal ji taabal ci kaw asamaan waaye subhanallah yàlla jooju moo wàcce moo wàcce taawal ci kaw asamaan yàlla jooju moo taye moo def isa sax di dekkil di dekkil ay nit anni axluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr ay ay ay fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi izni ubri'u al-akmaha wal abrasa bi iznillah waxil moota bi iznillah wallahi waxul wax naam yàlla et puis waxuloo ko moom ba mu nekkee ci benn dala la isa wax isa ba muy dekkil ay nit ba isa di Euh, illa bi izni di sàkk lu mel ni picc ah. euh, muy wax mu nekkaat ba isaa di def yu mel noonu la la yàlla la la isaa wax bi iznillah bi iznillah hmm. yàlla borom subhaanahu yow taxaw nga naan ruu jaar mbokk yi yàlla waay ruu ruu leen yàlla ruu sax yor faddal yi salaamaaleykum wa mais Oustaz Alpha man man man damay poser benn question mooy lu tax ñun sénégalais yi bu ñu waxee yonent bi salaa salaam nekkul loo xam te daf leen di saf bu ñu waxee borom bi subhaanahu wa taala du leen saf mais bu ñu waxee sax seeni waajur du leen saf une fois nga wax seeni sëriñ mu nekk loo xamante ni man loolu daf may metti lu tax fu ñu teg seen sëriñ ñoom duñ fa teg borom bi subhaana taala lu tax fu teg seen sëriñ yi ñoom duñ fa teg ki nga xamante ne mooy ki yàlla yónni ci ñun mooy yonent bi salaa sallam mm-hmm. mu doon loo xamante ne lu metti ci xol la parce que la mii lu muy wax amul benn lay mm-hmm. te même bu ngeen doon wax fii ba suba du leen tontu ndax amul benn loo xamante ne lu leen war a mën a tontu la mm-hmm. euh, dafa nekk dafa metti ci xol dafa metti ci xol ci xol yow ñuy wax yonent bi salaa sallam ki gën ki gën ki mbindeef ñu koy wax mën nañ ko wax fii ba sonn mais Sénégal doo gis ku jukku tontu lu dul mm. ahlu sunna mm. ñu dul ñoom dañu mën a tontu mais nga gis ahlu bidaa yow boo waxee seeni sëriñ lu mu leen di jaral man parfois damay toog ba yàgg sax ma ni est-ce que ñun ñu ngi posé suñu bopp euh, question que ni yow tey jii nga ni yow sëriñ bi moom mooy sa sëriñ ba mu gënal la lépp mm. yow boo doon dee moom dina wax ma mawt bi li ngeen ko natt li ngeen ko nat comme lan laa ko mën a misaalee sax métit bi nga xamante ni mi ngi koy mi ngi koy daj ci hmm. sukuraat mu sëriñ bi ñëw sa place ni teg leen ma ko du la ko mës a defal hmm. xayaatul barzaq ngay dund barzaq euh, dund barzaq est-ce que sëriñ bi dina ñëw ne la xat-xat yi nekk ci biir bàmmeel bi bàyyi leen sama taalibe bi man ma ñëw dund place am sëriñ bi du la ko mës a defal hmm. lu la tee nga topp yàlla top yonntu bi alayhi wasallam top yalla dafa dafa dafa neex pour man dafa dafa neex hmm. top yonntu bi alayhi wasallam dafa neex ndax da am xel bu dal am xol bu dal nek ci jamm jo xamanteni kuko kuko kuko ñamul doo ko xam ndax top yalla dafa dafa nek lo xamni pour man sénégalais dañ leen ci wara yé parce que li ngeen di def amna solo bu baax ñi ci bëgg yeewu rek ñi ci ciy mais ñi ci bëggul tam duñ ci hmm. mu nek lo xamanteni tay dafa dafa doy war Sénégal xaw ma na laa ko mën a misaale mais waaja metti na hmm. metti na lool bu baax a baax a baax mais nag wax dëgg yàlla bu ngeen mënoon di gën a yaatal dina gën a baax ndax sénégalais yu bari muy man muy samay morom daf ñuy metti daf ñuy metti lool barakallahu fiik barakallahu fiik soxna si am na solo am na solo naam Cissé yow yëgoon nga fi ah ñëwaatal c'est dafa ñoo xam ne seen bind yi ñuy bind léegi rek naam bismillah oustaz Alpha ñu ngi lay Yunus waaw naam bi ñu lay ziar. sànq ma wàcce daal man xaw ma lan laa wax sa ba ngeen wàcce ma. ahlan wa sahlan. waaw loolu ngeen maanaam débat bi li ma dégg sëñ Samba di wax lan man dama bëgg a lan moo wóor alfa lan moo la wóor ne loolu sëñ Tuubaa moo ko bind. xam nga bëri na xasida yi ñu moomale sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa bindul ko. Hmm, ok jàpp ne yow. Zimam wara sëñ Tuubaa bind yow. waaw parce que ruuxu mbindeef bi nekkul ci loxoom ci loxol yàlla nekk. ok da ngaa sëñ Sambay. non du weddi sëñ Sambay sëñ Sambay ba muy tàmbali dégg nga li mu wax daf ne Serigne Touba bind na ne sëñ sëñ Sambay moo di ku tooboon suuf si moom est que am na lu ko wér ne sëñ Touba moo bind loolu. waaw waaw mais yow da ngay gëm sëñ Sambay wala nga weddi ko wala nga gëm ñoom ñaar ñëpp benn benn ñun. téere Serigne bi tey. ma ne defal ndànk Cissé defal ndànk Cissé defal ndànk dañuy dañuy waxtaan. sëñ bi si boppam tey ñu delloo ci téeram bi dañ faa fekk tey mu bind fa lii sëñ Sàmbay firi ko joxe référence bi bañ demee si téere bi ñu fekk ko fa te téere boobu noonu tey sëñ bi moo ko bind. loolu wóor na. sa waay yow woor na la yow sëñ bi tey moo bind ay sëñ bi yow gëmoo benn xasidaam. ankay. ban xasidaam nga gëm. mu mu waahim bokk na ci. waaw gëm nga midaadi. midaadi. ah. waaw. ah lu tax nga gëm midaad yi bëgg a bàyyi xasida bi xasida bi non gëm naa midaad yi waaye ndax sëñ Tuubaa moo ko bind laa la téere ba liir naa ko jàng ko waaye gëmoo ne sëñ moo ko bind kon lu tax nga ko bëri na xasida yu ma jàng gëmoo ko bind ok léegi yow léegi yow yaa gën a xam mbind sëñ Tuubaa sëñ Samb sëñ Sambay waaw sëñ am naa beneen question bëgg laaj loolu moom xam naa ne sëñ Sambay nee sëñ Tuubaa ko bind léegi lay wax ci loolu waa sëñ Saam wax loolu la wax sëñ Saam loolu la wax. waaw mais dama ne boo ko sëñ Saam si boppam loolu mu wax daf ne hmm. sëñ Tuubaa moo ko bind dama ne. Hmm. loolu maanaam loolu ku ko toppoon xam nga damay bañ a ñàkk waaye ku ko toppoon maanaam amul preuve daal. dafa na preuve si sax am na preuve parce moo ko bind ñu dem ci naa ne moo ko bind léegi Ah, ah. d'accord naa sëñ Tuubaa moo ko bind léegi gëm naa itam gëm naa d'accord naa gëm naa sëñ Tuubaa moo ko bind waaye léegi dama leen leen eh, daa juum daa juum wala non sëñ Tuubaa du koy eh. ah, yaa ngi contradiction yow léegi yaa ngi naan bind ko léegi sëñ Tuubaa bind na ko mais dama bëgg a dama bëgg a ñëw waxtaan mën a gaaw léegi nee nga d'accord nga moo ko bind comme d'accord nga ne lu mu bind gëm nga ko comme gëm nga ni ruujaay mu ngi ci loxo sëñ Tuubaa ko non loolu loolu moom loolu saa waay loolu gëwuma ko <laughs> parce que loolu képp ku koy wax waxul parce que ruu jaam ñi moom si lo si suñu borom loolu moom du débat loolu maanaam loolu ah, si débat man dafa jaam nga baal ma nga baal ma xanaa du yaara lu wax dëgg la dañuy ruu jaam suñu borom ku xamul suñu borom rek mooy wax ruu jaam ñi mu ngi ci loxo jaam comme comme retirel retirel comme comme retirel ses propos retirel li nga da nga war a da nga a wax Cissé mbaxal lan mooy différence bi wax comme da nga war a dafa juum fekkee yow nee nga da ne dañ tubaab du koy juum ba pare nga ne lii mënul nekk ruu jaam ñu ngi ci loxo kon da nga retiré li ni sëñ Tuubaa parce que moom moo ko wax li li nga ne loolu mënul nekk moom moo ko wax. Euh, Cissé Cissé. waaw mbaxal ak ceebu jën nan mooy seen différence. non Ismaël yow ndar ndar yow da ngaa bëgg affaire léegi. ah Cissé. man yow ndar ndar non eh, eh, question moo lay posé dafa solo de. waa léegi waa léegi question moo lay posé dafa solo. Alpha. mbaxal ak ceebu jën xam nga tax ma lay posé question bi euh, loolu mbaxal ak ceebu jën seen différence moom mënoo di lekk mbaxal bi ak ceebu jën mënoo mënoo dund ci loxo yàlla la nekk ba pare man mënoo dund ci loxo yàlla la nekk ba pare sëñ bi di bind ni mu ngi ci ku xam Sëriñ Tuubaa loolu waxul ko bon kay da ngay gëm yàlla weddi sëñ bi wala nga weddi sëñ bi gëm yàlla alpha maa ngi am benn question mo alpha comme Cissé yow yow bon ñaar moo mën a am Cissé Sëñ Tuubaa waxu ko sëñ Samba daa juum wala sëñ Touba wax sëñ sëñ Touba dafa juum. man daal li ma gëm sëriñ Touba waxul ko te li ma gëm ci sama xol fas ko. yàlla si boppam moo yor ruu jaam ñi. comme sëñ Samba daa juum comme daa juum. ah ma de mais man daal li ma xam mooy sëriñ Touba li ma xam mooy sëriñ Touba waxul wax jooju. te ruuxu jaam ñi nekku ci loxol nit ci loxol yàlla la nekk képp ko xam yàlla xam nga ne loolu moom. léegi ban problème ban problème nga am ci sëñ sëñ Samba dafa juum sëñ Samba du non en tout cas waxuma ne sëñ Samba dafa juum dama li ma xam mooy sëriñ Touba waxul wax jooju. aman kay sëñ Touba kay moo ko bind moom loolu moom dafa donc comme sëñ Samba yi daa juum non non moom garaawul wax ne bind ko léegi il faut mu nangu dara sëñ Samba yi daa juum wala sëñ Touba moo ko bind daa juum ñaar yi il faut nga nangu ci benn man de wala yaa du ma nangu juumug sëñ Samba yi du ma nangu juumug sëñ Touba waaye li ma nangu daal sama xol bi da gëm ko mooy ruu jàmm ci loxol yàlla la nekk waaw jërëjëf Cissé ñu ngi lay jaajëfal yal na yàlla fay la yal na yàlla sàmm non pareegu ma dimbali ma ngir yàlla bu ma ko dafa am lu ma bëgg laaj Alpha ngir beneen bi moom mooy ne tey ngeen ragal yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala da ngeen di nekk si lu nga xam ne si yéen seen bopp da ngeen di xam ne lii du dëgg mais tey da ngeen di jéem a jaay dof-dof la bàyyi leen seen xel yi ngeen di foowee Bachir Bachir bind na ma alkaatibul baxdaadi waaye may gis gars yi bind na leen ma alkaatibul baxdaadi waral waral waral leen ba waral leen ba kaatibul baxdaadi kooku ban borom xam-xam la ci kaw àdduna man daal loolu laa bëgg a xam. mais Alpha. man koy war fan yii yëpp. je ko baale bu bu dafa sama kopp di sax yi waa ji topp ko taw si gaay man daal wër léegi bu boobu ba maa ngi koy wër mun moo gis kenn bu waaw bindal leen ko voilà voilà sax man dama waa ko mënoon bind français ci arab bind ko ci allo ah, kaddu bu baax daal salaamaaleykum

ah Ibnu Xibbaan ne Ibnu. mais boobu Samba Samba boobu da ko de Ibnu Xibbaan bi. non non non bokk salaamaaleykum mook débat moo ko sal mo débat moo ko sal mo def waaw bisimilah baax nga nekk daa bëri bi xanaa géej nga nekk damaa nekk ci plaza bi moo tax quoi xam naa mooy loolu ak kii yeeg yooyu plaza bi laa nekk plaza ah. ci jardin yi jardin jardin public laa nekk waaw mais dama am si kàddu yu may seede rek gis ngeen yéen waa ahlu sunna yii hmm. wallahi lazim kuy wax rek te yàlla rek tax xam naa su ma waxatee nag ñu ne Baye Fall bi wax na yàgg naa dugg ci ay live du ma waxee ñu ne doo Baye Fall waaye fi ngeen teg seen tànk man daal gis naa ne mooy mooy mooy mooy leem parce que nit bu fekkente ne da ngay ñëw nga wax ak ay dalil nga invité nit man li ma gën a metti mooy Oustaz Arane Seck miñ ñu ne yéen ñaar da ngeen di waxtaan ngeen di waxtaan boo ko laajee question bu ko répondre ba pare dina la xoolaatal ci li ma wax léegi ñun waa sufiyanke yi ñun fan la ñuy référé mooy sunu borom xam-xam. Assane indiwul dalil léegi ñun fan la ñuy référé. mais Assane Bolt Assane Bolt ngay waaw wan fan la ñuy référé wu man kay nit kay boo ko woowee ci débat ngeen ne da ngeen di waxtaan lu ngeen indi ngeen indil ko ci dalil. waaw bu yow buñ la waxee kay bu réerantal mais yow question bi da koy téye ba minute yi jeex man damaa découragé ci live boobu. wallaay lazim yéen a nekk ci dëgg yere nekk ci deug de parce que bo fekkente da nga dem ba jangi ba am say diplôme ñew ba di wax ne live bi une heure de live bi nga ci xulo istawdatu sax mëno ko wax xana man Baye Fall bi sax xana man mii ki nga xam ne féeru mooy ijji xanaa istaw daatu war naa ko mën a lavar, naa ko mën a liir yaa may lavar, ñu tegal la vaar ñu tegal la vaar ñu tegal la vaar ngay daw gis ngeen yàlla dëgg la bëgg la wax nañ waxante gis ngeen xam-xam bu ne am na am na lu ma dégg tonton Ismaïla di ko wax ci ay live am ci ay TikTok am nee na waa ahlu sunna képp ku leen di képp ku leen di ñëw la ngay wax na ko teg ci ciislaay wala loo wax nga indi ko dalil ñun foofu la ñuy xaaree ñuy débat ak yéen ñun nag amuñu xam-xam dañuy déglu dañuy root dañuy root ay jaaxil lañ waxee dañuy root xame nañ lu baax xam nañ lu baax ku nekkul ci lu lu kii mooy lool de man daal loolu laa amoon lu may lu may lu may wax commentaire yi nag su ma paree dinañ ma bëgg a rey doo bàyyi faal doo bàyyi faal loolu moom du Baay Faal dëgg moom ku ko gis moom saa yi da nga koy ràññee moom dëgg moom man yàlla dëgg rek la bëgg man moom looy wax ba dugal sama nopp yi dëgg du ma du ma jël aw fet ne nekkat ak kii la waaw ku gis ne ne nag yeneen yeneen nekk ci dëgg de yàlla la yàlla dëggal Cheikh Ibra yàlla la yàlla dëggal Baay Faal Baay Faal macha allah nee na baak Cheikh Ibra <laughs> jërëjëf moo ne vrai Baye Fall la sànq dugg naa si kontam xool ko nag macha yàlla baax la dina ñëw dina ñëw yàlla baax la yàlla baax la. indi la si sunna. man daal boobu ba léegi maa ngi wër Ibnul Xusaafata ak alkaati bu ñu wax ma la jàppale nag. jàppale salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw ñu ngi lay jaajëfal. jazakumullahu xayran dégg nañ ndénkaane yi. donte nag jël nga suñu temps bi yëpp yëpp yëpp ay dénkaane ba pare te duñ mës a wax duñ dajji duñ dajji lañu fi teg jamais daf ñoo teg dil daf ñoo teg dil quoi mais bon subhanallah ñoom tey kii wax di bokkaale yàlla wala kii wax di wax yàlla wax yu garaaw ñoom amulu leen importance leen amoon importance mooy tey Yunus wax na benn wax moom ñu dagg ko Yunus dem da doon saaga suñu sëriñ waaw loolu waaw loolu leen ñor subhanallah loolu rek moo leen ñor Eh, ragal leen yalla yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ñu bind señ bi dañ ko sak sak ñu señ bi ñun fu ñu jaar ba ñew ci aduna fa la jaar señ bi yalla yonne wuko señ bi yalla yonne wuko de yalla yontu bi sallallahu alayhi wasallam lay yonne señ bi nekk won sahaba bokul won sax tay ci ñetti eh, xorn yi nga xamne ci ñoy yi gën bokku ci señ bi mu gene ga aduna yagul fekke dafa am ay njumte njumte yu yooyu dañ koy leral lutax tax ñu koy leeral pour gindi ci nit ñi ñu bañ ko top pour leral nit ñi ne señ bi de ku doon juum la waaye dañ koy ñaanal yermande yalla benn doomu aadama duñ ko topp si ay njuumte kenn kese la ñuy am ay kenn ko yooyu dañu koy leeral tax ñu koy leeral gindi ñu bañ koo la ñuy topp te duñu laaj question duñu laaj nan la demee duñu laaj dara dañ koy topp ci gumba tëx luux mu yonent bi sallallahu alayhi yàlla ñu ko wax yàlla moo ñu ko wax yàlla moo ñu ne boo leen toppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngeen di jub boleh len ko topé da ngeen ni taxé bo len bëggee yalla bëgg leen gërëm leen jégal leen te ngeen topp yonent bi alayhi wasallam ku dul mom bo fi ab wax dinañ ko ci alquran ak sunna su dëppoog mom ñu top ko su dëppoogu dok mom dañuy ubi poubelle ben nako ci cabax tejj ko amul sax wala jazakallahu khairan mais gaay bo len faté tamit wër kitabut tawhid bu albani bobu tamit maa ngi wër bobu lay gis moko bashir ak euh, ki furqan boole ci kitabu tawhid albani bo bo leg ma ngay wër ñetti dal katibul baghdadi waaw man man de ibnul khuzafata kitabu tawhid albani bo albani man sen naka tay itam ba gis mako de waaw waaw japp leen japp len ñetti yoy dal yitel na man jak fatima euh, yorna ben yere ñasen quoi tay lola waron solo ko asad ba pare nam ha te war a sol comme. bu amul chaîne tamit jàppale leen ma ci rek boobu tamit bëgg naa gisaguma ko. jaajëf mais Alpha Google lañ la tuddee ah. ah. <laughs> waaw gisoo gisoo Ahmed Cissé lu mu wax nee waaye oustaz yaa ngi mel ne oustaz Alpha nii di dem Google nii. ah Google da aayul ah, bu fekkee na kay amul benn muskila. wa ñom yaay faté yaay faté cheikh bi bañ doon débat ak ñom bo ma maa ngi Sénégal si Baye Fall den hmm. ben benn xam na la tuddu té mu nekkoon Jamia nek Madina hmm. mu né ñom dañu wax né ñun Google lañu dugg yaay faté dugg lool mais waji dag dañ ko doon laaj ay preuve mu yalla def mu tal caméra bi nak tal caméra bi yor machine bi di taper ci Google hmm. est-ce que du Baye Niass non du Baye Niass ben way la si ñom di nekk jaamia di jàng bi mu taalee sax yaa ngi naan ko yow xàmme naa néegi néegi néeg yi jaamia la. Ah, waaw dëgg waaw rek Google dañ fay war xam-xam. maktab Cheikh Google tey Google tey dañoo téléchargé hadis yëpp tey PDF. lépp fa nekk lépp fa nekk. Hmm. technologie bi moo demee noonu léegi. li nga génnee Google bu fekkee wër na dara newu ci na wër rek problème mooy nga génnee Google loo xam ne wërut Jackson naam bisimilah. mais Jackson Cheikh bi Jackson lii la de Jackson comédien la de. ah bon da nga ko xam. xool naa ko sànq ay vidéo am quoi Jackson comédien la de Jackson bismillah. ah bismillah. liggéey da ngay layal. bu layalul rek dina kii de. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. je suis un comédien nag mais chaque jour ko jëfee. jaajëf na ngeen def. waaye xaaral sa waay xaaral. naam bisimilah. waaw ma ne je suis waaw man je suis un comédien nag de métier mais chaque jour mhm. seen direct dama koy seetaan ça veut dire dama ciy dama ciy taataan quoi. Mhm. waaw maa ngi tuub bu baax a baax boobu ba léegi ba ma ñibbisee ba léegi dama euh, tëdd rek di ko cons di reetaan di ci jàngale. Mhm. mais daan loolu bëgg a laaj man euh, euh, jàngum sama sama njàng alxuraan mais nag bëgg naa di gëstu diine bu baax a baax. am na tarixa moo bokk na mais du ma dugg ci ma bokk loolu du du ma dugal fii. Mm-hmm. mais dama leen dégg ngeen naan axlu sunna axlu sunna ngeen di dund. Mm-hmm. li yonent lu fi yonent bàyyiwul doo la ko def n'est-ce pas loolu mooy axlu mm-hmm. lu fi yonent bàyyiwul ci diine yonent bàyyiwul ci diine. Ah? waaw waaw ah? waaw. lu fi yonent bàyyiwul ci diine. waaw waaw amul problème. léegi dama leen posé question après ngeen tontu bu la neexee ngeen dindi ma man damay continuer di seetaan direct ba ba keroog ngeen ne mm-hmm. damay continuer di mais euh, yonent bu daan aji màkk n'est-ce pas euh, gileem la daan dem waaw yéen est-ce que yéen gileem aji màkk gileem ngeen war wala da ngeen di jël avion question boobu laa amoon maa ngi jégalu ngeen s'il te plaît non ngir yàlla laa benn question balaa ngay wàcc waaw. jamono yonante bi avion amoon na. alpha jamono yonante bi avion amoon na. non yéen yéene nañ man ci yéen laay topp man yéen laay waaw moo tax ma lay laajal. lu fi xam nga ko ma ne la ma précise ma ne la ci diine. waaw. nga ne waaw. waaw est bu daan dem Màkka gëléem a daan jël nest mu ne la waaw. waaye nag mu waaw waaw ba xam jamonoom avion amoon na. amul woon. yow ci sa xel bu avion amoon. waaw yonent bi dina bàyyi. waaw gëlëm dina bàyyi avion bi jël gëlëm. waaye léegi mu léegi layal nga boobu baa ma posé wàll beneen question nga layal dama bëgg a xam rek. Mhm. dégg naa wóoruma ne ma ko dégg parce que yéen war ngeen am xam-xam ñu ne jamono ñoom yonent bi. Mhm. Euh, xam nga ba léegi sax am na boo dee Bangladesh boo dee Bangladesh Jackson Jackson déglu non xam nga ñëw Jackson non déedéet déedéet ah, boobu layal nga ko d'accord naa layal nga ko d'accord naa ok ok ah, léegi deuxième bi dama ko gis ba léegi boo demee ay Bangladesh wala nga dem ay Inde bu ñuy julli dañuy wodd dégg naa mhm. ñu ne jamono yi yaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mhm. ñoom tam bu naan julli dañ naan woddu loolu dégg naa Jackson Jackson loolu ci am rek ngeen wax moo lu tax yéen Hmm. boo doon julli doo doon question moo nekkoon noonu bu dee hmm. daanuñu waddu tamit ma am lu ma ci xam quoi hmm. damaa bëgg a xam rek ndax damay déglu. ok jërëjëf Jackson. Ismaila demal tënkal nga dem. waaw xam euh, Jackson maanaam xam nga temps bi ngay passé ci ci di def comédie dama bëggoon nga consacré que di jël trente minutes par jour nga jéem a gëstu sa diine parce que am na loo xam ne jullit buy posé question bi sax. maanaam dafa dafa ridicule nga baal ma ci terme bi xam nga yàlla ba muy wax Baye Ibrahim woowal nit ñi si ñu acci yàlla dafa ni ka woowal nit ñi ñu acci si bépp waruwaay ah li ma la wax ay alxuraan la de si bépp waruwaay bon yàlla tënkul waruwaay foofu déjà question bi ngay posé yàlla rek leen na problème parce que yàlla mi sàkk àddina xam lépp lu war a am yàlla xamoon na ni avion dana am am na ñoo xam ne avion lañu jël am na ñoo xam ne vélo la ñuy jël am na ñoo xam ne bateau la ñuy jël am na ñoo xam ne hélicoptère la ñuy jël maanaam bépp façon waruwaay rek tey jii màkka boo demee bu aj bi ñëwee am na ñi gën jege ñeneen ñi oto la ñuy jël am na ñoo xam ne sax vélo dañuy pédale France ba ba ba Italie ba ba ba kii daal di ñëw aj am na ñoo xam ne ay moto la ñuy jël am na ñoo xam ne avion la ñuy jël maanaam loolu jël avion ak jël vélo yokkul ci diine wàññiwul ci diine yooyu ay moyen la yomb yomb yombal la waaye ni yoon saasam daan jullee tey jii na yonent bi daan jullee yaa mille quatre cent ans noonu la ñu war di jullee tey jii yonent bi li mu gëmoon ci yàlla noonu la war a gëm fii yàlla fi fi yàlla tegoon nit ci wàllu tolluwaay ci wàllu ngëm foofu la yàlla teg nit ba tey keneen du fi ñëw indi leneen lu ci jamono bi maanaam loolu mooy diine ci gàttal mais ay ndax avion amoon nag ndax yoon bi daana téye téléphone nag maanaam yooyu moom maanaam diine ju ki am xel sax warul poser question yi nga baal ma jël jël trente minutes bi ngay def comédie jël la trente minutes nga jàng sa diine loolu laa lay conseillé daal. waaw maanaam daa wàcc. am na solo. Jackson Jackson tonto Ismaila aaya bi mu la wax mi ngi ci suratul xajj suratul xajj sura bu tudd xajj ngay dem aaya vingt sept fa la nekk yàlla muy wax ne wa azin fi nnaasi aaya boobu foofu la nekk aaya 27 boo demee di ko gis fajji yaatuunaka rijaalan wa ala kulli aamiri min kulli fajjin amiq naam boo demee di nga ko gis aywa gars yi bu leen fàtte boobu ba léegi maa ngi wër alkaatibul baxdaadi ak ibnul xusaafata waaw bu leen fàtte loolu de jàppale leen ma ci rek fu ko gis rek waaw bind leen ki ki ngeen di wër bind leen ko gars yi ndax gars yi xam ko alkaatibul baxdaad yi daal maa ngi koy wër booba léegi ak ibnul xusaafata ayo Baye Cheikh te gisee ko ci yoonu murit yenn saa yi lan moo tax alpha du ci wax mhm. alpha moom maa jàpp ne moom dafa yàkkamti dafa yàkkamti rek yoonu mhm. murit bi dàkk bu ci am rek mu wax ci te yaakaar mhm. naa ne lépp lu mu bind ba ci jullit yi sax am na ci ñi ngi naan ay jullit lañ waaye boo xoolee ba ci biir ay naafiq lañ te moo ne ñi ngi ci biir julli ñuy daw kon murid yi faaw mu am loolu mais lan moo hmm. tax chaque jour du wax maanaam li nga xam ne moom mooy lu baax li ne ah suñu mbokk murid yi kat hmm. lu ñu a lii kat day ñu ngi koy rafetlu wala yooyu loolu rek man moo ma jaaxal ci alfa loolu laa du wax yu baax yi hmm. waaw fay sa micro dégg naa bu ko defee li may wax li may tontu mu gën a leer lu njëkk moy wax ni man ci yoonu murid murid kessa lay wax lool mo jikko nek njumte man damay wax ci bepp pas-pas bo xamne ne wala mbind buñu mbind la buñu bind mu ak alcorane ak sunna nit ñi di ci langamu di tollale kooku ak yalla bepp mbind bo xamanteni gis na ni bo déggee ñu na sëriñ bay yalla sëriñ bee sàkk jaam yi sëriñ bee sàkk yàlla sëriñ bee boroom na am mu am sëriñ bi du moroomu yonente du moroomu malaaka man bépp mbind bu mel noonu dama koy teg ci penc mi leeral ko ngir ñooñu lañu fas ba di ko wax ci sëriñ bi ñu xam ne loolu wërut loolu moo tax man may gën a focaliser wu ci mbind yi nga xamante ni day woote ci kenn sëñ bi di dendale boppam ak yàlla ak sëñ bi léeg-léeg di woote woo moomeelu yàlla di ko askanalee boppam ndax ci mbind yooyu tey la bokkaalekat yu bari toj toj yu wax ci yoonu murit yépp ba cinquante pour cent wala soixante pour cent ci murit yi gëm loolu nga xam ni loolu suñ ko gëmee buñ ci faatoo safara lañ jëm ndax bokkaale la ndax yàlla moo ne inna allaha laa yaxfir an yushraka bi ku faatu ci bokkaal yàlla du ko jéggal man dama leen di jéema nag ci mbind yooyu laa focaliser ngir ma bokk ci sabab sabab bi tax yàlla di leen sauver keroog àllaaxira moo tax ma focaliser wu ci yooyu leeral yooyu ba ñu xam ni kat mbind mi ay njuumte la ba ñi daan sukkandiku ci mbind mi di bokkaale sëriñ bi nga xam ni mën nañ cee faatu wóorut ndax dañ ko teg fan lañ ko teg sëriñ bee ko bind ba mu nar leen a xañ passeport aljanna muy tawxiid ma ah ñii kat samay mbokk lañ comme que samay mbokk lañ bëggal naa ne lu baax bëggumakat kat ñu tàbbi safara te yàlla am na lu ma xamal as tuut fa ñu sukkandiku mu nar leen tàbbiloo safara ay mbind yoo xam ci lañ sukkandiku bari bokkaale yàlla borom bi subhaanahu wa taala ah mbind yooyu ma duur ci baaraam leeral leen ni liikat ay njuumte la ba ñu mun ko moytu loolu moo tax ma focaliser wu ci mbind yi nga xamante ni ay erreur la. ndax mbind yi nga xam ne yu jub la loolu leer na ñëpp xam nañ ko kenn du ci bokkaale yàlla leer na ñëpp kenn mënu see bokkaale yàlla yàlla mbind yu jub yi kenn mënu see dem safara waaye mbind yi nga xam ne taalibe dañ koo gëm ba ne sëñ bi amul morom sëriñ ba yor caabi aljanna sëriñ ba yor ruu jaami sëriñ bi àllaaxira bu yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne sëriñ bi taxaw ne ma romb yàlla ak yonente bi dem ci sëriñ bi mbind yooyu nag laay fas yéene di leeral ngir sauver samay mbokk am na ku ne léegi yàlla inna allaha yaxfiru zunuba jam yàlla day jéggal bàkkaar waaye demal ci beneen aaya alquran mooy leeral alquran yàlla wax waaye nga dem ci aaya bee mu ne ah mu ne lan inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi léegi zunubu jami an yu muy baale yàlla ne la eh lii bokk ci kat shirk kon inna allaha la yaxfiru an yushrak bi mu def exception ne la bàkkaar bi kat moom ku ci dee yàlla du la jéggal te bàkkaar boobu la Sénégal yi bëri di faatuwaale ñaata Sénégal ñoo faatuwaale sëñ Fallou mooy borom na am mu am ñaata Sénégal ñoo faatuwaale sëñ Saliou mooy borom jamono ñaata sénégalais ñoo faatuwaale sëñ Fallou mooy borom na taw mu taw bu mu taw day taw bu nee taw du taw ñoo faatuwaale ni Serigne Touba moo yor ruubu jaami ñaata nit ñoo faatuwaale Serigne Touba moo sakk jaam yi ñaata nit ñoo faatuwaale ñoo faatuwaale moom sa baay moom sama baay ñaata nit ñoo faatuwaale ni Serigne bi moo yor ruuwu jaam ñaata nit ñoo faatuwaale Serigne ba yor caabi aljanna ah ñu ne attan nit ñi kat ñu ngi faatu ci loo xamante ne meru yàlla la ci bakkaar boo xam ne yàlla nee ku ci faatu du la jéggal. comme kat nañu taxaw ci loolu fan la ko nit ñi teg ci ay mbind mbind yi kan nañ ko leeral moo ci loolu mais lu leer mbind da ngeen dee leen julli dee loolu leer na amuñu ci problème loolu ci problème loolu ñu ñëpp d'accord nañ ci ñun ñëpp dëppoo nañ ci waaye lu ñu wuute kat nga xamante ni nit am cosaan sax dafa am cosaan alxuraan ak sunna <coughs> naam naam barakallah fiik am na cosaan ci alxuraan ak sunna loolu moo tax may focaliser wu ci mbind yi nga xam ne safaan la bu leen fàtte nag alkaatibul bagdaadi boobu léegi maa koy wër xaw ma fu mu féete ak ibnul xuzaafata jërëjëf Baye ñu lay ziar parce que lu ñu dese 17 minutes moo ñu dese. donc bu leen fàtte alkaatibul bagdaadi boobu léegi maa koy

kan kan mu am alkaatibul bagdaadi yaxya yaxya am nga ko mooy shield de ana shield sax shield ana xaaral shield nga war a daw quoi shield moo ne sànq defoon na demande bëggoon naa ko yéegal mais dafa demaat ah shield waaw yow temps mi ngi fee defal demande shield naam Moha yaa ngi ci micro Moha

loo xam ne da ngeen da ngeen koo daal di li ma sëñ Tuubaa naa wax ngeen indi ko ma ne incha allah. nga layal ko ah. am na. Eh, fayal micro user user mi fayal seen micro quoi. ok mu xaar mooy wax wala user mooy wax. man la man mu xaar. user moo war a fay micro bi. fay naa micro fay naa ko. non fayul. fayul wala nga wàccee ko quoi moo koy wàccee waaw wàccee naa ko bisimilah ayo moxa da nga bëgg ñu tégal la sëñ sambay fi doon waxé lool. Wa Seigne sambay wala wax Seigne Touba wala ta tasoof rek loon ci laa bëgg anas anas yéegal anas malik xam Ayo. xale da ngay tëj sa micro ñu tégal la après nga tej sa micro dégg Ayo.

ci ñor maanaam ci mag ci sot yi nga xam ne dara desu ca amatul luñ cee sonne lépp dafa mën la waaw waaw ci Ahmadu Bamba radiyallahu anhu dafa toll woon ci martaba boo xam ne fa toll alwaraa buñ ko waxee lu gën a bari ci jamono ci làkk ci waxi arab mu ngi ci jublu doomu aadama yi waaye foofu mu mu tolloon di ko wax ak waraa ji mu wax du doomu aadama yi rek ndax picc sax balaa naaw tàgg ko wund sax balay rey janax tàgg ko ngelaw sax balay naaw tàgg ko lépp diiwaan ba a xam ne fa la gaa baax ñuy daje buñ fa toogee kenn ko raf ci lu dul sax ragal nañu yàlla rekki sa imaan sa gëm nga dee ci texee ji subhaanallahi mu xaa bismillah dégg wallaahi mu seytaan rajim a bon moo waaw loolu moom loolu moom yow mën naa comprendre ndax boo xamee ndax boo weddeen yàlla suma wa taala mënul may loolu doomu aadama kon mooy yow yaa ngi taxdiid quwwatullaahi wa iraadatuhu wa afaa loolu day mel na taxdiid ne yàlla subhaanahu wa taala moo amul wala amul droit jëfandikoo xuwaam ci niwel amu droit wërsëgal nit ci dayo bi ni te yàlla moom moo ne inna allaha yarzuqu man yashaau bi xeyri xisaab donc yàlla suma sara jox na li subhaanahu karim daan moom amul leen loo xamante ne fii maanaam ci koo xam ne nee nga alxuraan ngay tënk ak sunna war naa neex a comprendre ci sa xel loo xam ne lu jafe la wala am na yenn complication ok yow sa preuve mooy daal yàlla mooy wërsëgal ko ko neex waaw loolu mooy preuve waaw ak ak ci yaakaaroon naa boo naa boo ñëwee da indi lu benn suuf yi mosut indi. <laughs> bu ñu gisee yi pour man yow da nga def du lu ñu du lu ñu tàmb dégg quoi man loolu laa jàppoon. non xanaa déggoo li mu la nee naa la yow boo. sa sa balbalu bi non ñëw indi lu raar lu suuf yi daawul wax sax feneen ngay rek. nee naa la moom boo ko weesee rek. a ak iraada ko waaw ñun loolu koy yàgg nañ ko dégg ci yéen mooy yàlla mooy may ko ko neex mooy wërsëgal ko ko benn lay bi ngeen am rek léegi ok gëm nga yàlla wax bu mu wax ni walam yakun lahu sharikun fil mulk amul kenn ku muy bokk ak nguuram moom yàlla ak ay jëfam moom yàlla aay bi gëm nga ko waaw. gëm ngay defar lii ak wax bu moom bu mu wax ni ruujaa yépp mu ngi ci loxo. léegi ruujaa mi loolu. Hmm. ñun ne mi ngi ci loxo sànq loolu tekkiwul ne. Seydina Xadim dafa bokk ak yàlla njóoram bi loolu amul benn relation ak boo nee jaami kay jaami jaami fay sa micro c'est que ñii dañuy yëg duñu fay seen micro quoi ku yëg dangay fay sa micro mais sinon après duñu duñu dégg quoi ah, waaw ma wàcce fay sa micro ñu mën a dégg ñeneen ñi sinon duñu dégg mais da ngay yëg taal baay ci kaw après ok léegi yow jaami waaw jaami bu waxoon benn jaam ñaari jaam ñu mën ko dafa ne jaami jaami du nguur yàlla jaam yi waaye jaam ci nguur suñu maam loolu fii moom lépp lool gis lu existé rek ci nguur hmm. suñu borom la boobu ok léegi jaam léegi jaam dama lay laaj jaam yi waaw hmm. ñu ngi ci biir jaam wala waaw. ok malaaka yi ñu ngi ci biir jaam yi. waaw. comme sëriñ bi moo yor malaaka yi ak ruuwu yorante yi. yow yaa écho yow yaa sooy tontu nga taal sa micro. jaam boo nee jaam sëriñ waxul nit rek de waxul samay taalibe de dafa ne jaam yi. jaam yi malaaka nit jinne rabu àll ñëpp mais sama question mooy dafa gëm ni sëriñ bi moo Mouha Mouha da nga am bureau fi nga nekk da nga am bureau fi nga nekk quoi damay wax pare après nga ubbi sa micro léegi question bi mooy dafa ne alwara alwara xam nga ko jaami la léegi jaam yi malaaka mu ngi ci ay yonante mu ngi ci jinn mu ngi ci nit a ngi ci comme da nga gëm ni sëriñ bi moom moo yor ruu malaaka yi ak ruu yonante yëpp da nga ko gëm ubbi sa micro Moha ubbi sa micro Moha. Alwara. Oh. nit ñi rek lay signifié. déedéet du nit de. Alwara mooy la. du de. Alwara day firi jaam. day firi lu lépp ci univers bi. malaayka ci Alwara. lépp day day firi lépp lu nekk ci univers bi. malaayka yi ñu ngi nekkuñ ci kaw rek ñu ngi ci suuf malaaka yi si nekkuñ ci kaw kese non non loolu alwara si alwara mooy lépp luy dox ci kaw su lépp nekk ci suuf ak géej-géej yooyu yëpp loolay wara te malaaka dañuy nekk ci suuf léegi tontu ko léegi bàyyi malaaka yi fekk da def malaaka da def problème bàyyi lu ñu tardé foofu léegi yonente yi mooy seen mooy seen ruux xam nga moo yoon seen yow déggin bi ko déggee moo nekkul noonu. waaye waaye ngir rek sa waay ngir yàlla bu wax ay déggin yow yaa saxal ne yàlla mooy wërsëgal ka ko neex. comme loolu yor ruu jaami yaa ko wax. waaw loolu laa soxla yàlla mooy. laaj la ndax yonente yi ci jaami lañu bokk wala déet. waaw loolu laa la wax ne la nag loolu dafa laaj tamit nga jéem ci am déggin mu rafet. xam nga déggin mu rafet mooy la ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla day wërsëgal ka ko neex amaan na dégg-dégg ci biir wërsëgal ka ko neex bi de amaan dégg-dégg. no nekkuma foofu maa ngi ci jëmmi maanaam lim ne moo yor ruu yi kii ruu yi mindeef yeeg yénente yi ñëpp ci la foofu faa dañ am déggin wu rafet xam nga moo dama ca waxal foofu benn question kon sëñ Samba amul déggin wu rafet kon tontul foofu tontul am na déggin mu rafet ban déggin la fa dégg waaw may ma ma leeral xam li ma wax mooy hmm. maanaam bu fekkee da nga ne da ngay top alxuraan da ngay war xool képp koo xam ne neneen la kii jaamu yàlla la ñëpp seede ci moom ci nim meloon ci diggante ma borom subhanahu wa taala kooku lépp lu mu wax da nga cee war a jéem a xool déggin wa ca rafet nga ko. yow ba ngay xool amoo ci ci déggin yow da nga ne mayu bi mu ne ruu ci déggin am naa ci déggin mais bi mu ñëwee foofu fi ma ñëwee ci inna allah yarzuqu man yashaa bi juste dama bëggoon a ñëw tënk ne yàlla subhaanahu wa taala lu mu a may jàmb ak lu mu rëy rëy loolu it normal c'est normal te mënees na koo comprendre loolu amoo ci dégg da ñëw ne mayu bi yàlla la amoo ci benn dégg-dégg mayu bi yàlla la mu yor ruu jaami loolu nga wax léegi nga ñëw ba suñu waree ndax yonente yi ci jaami lañu bokk moo yor seen ruu nga naan loolu dégg-dégg la waaw li ma ne léegi bàyyi yonente yi léegi waaw moom xam dafa ne asri sama jamono waaw dafa ne jamono moo moo yor ruu jaami waaw moom moo yoroon ruu moom moo yoroon ruu Alaaji Malick ak Baye Niass tontu ma mooy dégg-dégg bi ma lay wax rek mooy dégg-dégg bi ma lay wax rek boobu la waaw maanaam xam nga wax yooyu noonu genre wax yooyu noonu mënoo ñëw asri la wax saay saay asri sama jamono sama jamono sama jamono Jamono alhaji malik foon jamono ablaye ñas baye baye ñas mu foon jamono umar fuuti ci jamono la woon isa lay ci jamono la woon léegi li may laaj mooy bayti bi dafa simple bayti bi dafa firi boppam dafa leer asri ci sama jamono la dallaahi fii yadi mu ngi sama loxo waaw jamonoom alaaj Malik muy woon foofu jamonoom Baye Niass Ablaye Niass Issa Laye keneen ak ñooñu moo yoroon seen ruuf waaw ba léegi ba hmm. léegi maam jëmmi asri googu rek jëmmi asri googu rek mu ne sama jamono googu rek hmm. maanaam taxdiid bi maam diggante moom li mu jàppee jamonoom hmm. yow isaan yow mënoo euh,